ak juróom-ñeent ñu defoon rek ci Saabaan séntu nañu ko gisuñu ko fii ñun fi nekk fii ci Madina waaye am nañu ko gis ci biir Sénégal te gis bi mooy nga gis ko la ñu gisal la ko rek te ñi ko gis xool nañ seen diine xool nañ seen maanute xool nañ seen lépp moo tax ñu yëgal li ñu ne kon weer wi feeñ na gis ni tey ñi nga xam ne nag ñoom lañ wax ne ko gis wax nañ ne gis nañ ko fii ci njóobeen kër Ceeba Ñaseen nga xam ne ci suñ wet la gis nañ ko itam ci dëkk bu ñuy wax Paal ci wetu Saint-Louis gis nañ ko itam ci Canaba Seck foofu wax nañ ne ilimaan ba ak euh, borom dëkk ba ak doomi xalifa bi ñoom ñëpp gis nañ ko gis nañ ko itam ci Kaffrine ak yeneen bërëb sax yoo xam ne on ñu wax ne gis nañ ko fa ñu ngi ko yëgal mboolem jullit yi di koy yëgal waa Madina waa Kawlax di xamal ne li yonent bi topp nañ ko ba xam ne weer wi sax na ne feeñ na tey suba ci dimanche bi mooy bi si kor yi fiche suba ci dimanche bi mooy bi si ndax tey la samedi fii lañ koy organiser jumaa ji fii ci Medina Baye ndax sàmmanteeg charte yi nga xam ne moom la waxtu wi laaj comme ni ko suñ gouvernement tëralee ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp am nañu yàlla may ñu teewaat ko at yu bari te musiba yi nga xam ne mu ngi lëmbee réew mi lëmbe adduna bi yëpp yal nañu ko yàlla yóbbul moom mi ko indi yàlla moom moo ko indi doomu adama lott na ci àddina bi lépp te teg leen ci benn yëf ñëpp di ko dund yàlla rek moo mën loolu ndax moom moo nekk moo nekk fu nekk comme moom moo nekk fu nekk nag lu mu bugg a amal fu nekk rek mën na ko amal moom moo amal lii nii moo ko mën a jëlee fii itam yóbbu ko yàlla na ko yóbbu te yàlla bu mu ko delloo seet mukk ci ñun yàlla bu mu delloo yàlla bu mu indiwaat itam leneen lu mel ni moom war lu ko gën a bon